dëgër këcc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 ngeen jëf jërë ngeen jëfati mbokk yi ci seen àndina ak Senbuzz TV parole aux détenus xam ngeen ni depuis ñuy wax vague de libération ci yenn détenus politique wala xel yi doon manifester yoon tege leen loxo ñu ngi leen di libéré ba tey Senbuzz mu ngi leen ci toppal di ci am ay jotaay tey nag ñuy am jotaay ak kenn koo xam ni ci ndaw ñi ñu jàppoon la bokk moom it jor na tëdd euh, ci kaso bi lu mat juróom-ñaar jàpp juróom-ñetti weer muy Ibrahima Dramé moom it section Grand Yoff wala fële ca lañ ko lañ ko tegee woon loxo moom la Senbuzz di am ak jotaay Ibrahima ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la encourager vraiment si métit bi nga xamee ni ci ngeen ci ngeen jóge di la gërëm aussi ci li ñu may jotaay beeg disponibilité bi. maa ngi lay nuyoo tamit euh, ci invitation bi nga ma invité. jërëjëf sama wolof bi xawul leer noonu xam naa dama koy jaxase ak français kuy. dëgg la Ibrahima. voilà man en fait euh, Grand Yoff laa dëkk. Mhm. ñu jàpp ma. yëkkatil micro bi rek. Mhm. ñu jàpp ma le 29 le 31 juillet. 31 juillet 31 juillet lañ ma jàpp. ñu mandat de dépôt ma le 3 le 3 août. waaw boobu ba léegi maa ngi foofu ba le 26 bi. kii vendredi laa mujjee jénne. lu lu waraloon ñu jàpp la ak fan lañu la jàppee. bon en fait damaa jóge woon benn jour dem école normal pour uti ay information pour m'informer la bas jour boobu dajee war a am procès Sonko ñu war koo déglu auditionné léegi dama jénnee école normal rek di dox ci tali bi benn policier interpellé ma bi ma woowee mu ne ma ana sa carte mu jénnee carte yi woon ko ko. mu ne ma saako bi nga gàddu nag ma ne école normale fii laa ñëw ute ay information dama war a gontu liggéey yara journalier laa quoi d'accord jamono boobu journalier nga daan liggéey voilà journalier ci ban domaine maçon wala non non ci opérateur kii la comment dirais machiniste d'accord dama doon dagg kii emballage plastique mhm. lay liggéey quoi léegi man na ko dama war a gontu mu ne ma non mais sac bi nga gàddu nag ma woon ko quoi sama tenue sa tenue de travail moo fa nekkoon quoi léegi moo interpellé ma après yégal ma ci oto bi. d'accord mu ne fi ngay dem wóorul mën na am nga jàdd dem manifestation ci soupçon la ma jàppee quoi mu ne ma comme dëkk bi wóorul. Mhm. dañ lay tëyee ba suba ñu bàyyi la nga ñibbi. Ah waaw noonu la ma jàppee à partir de 9h. 9h du matin 9h du matin. wërloo ma dëkk bi ba presque 17h. ma bu door a yóbbu police. et puis bi ñu lay jàpp dafa ni la woon wóorul dama la bëgg a ba suba ma libéré la. loolu lañ la waxoon ma wax policier bi loolu la ma wax. parce que finalement comme yàgg naa ci oto bi damaa bëgg sympathie ak ñoom di waxtaan ak ñoom yàgg naa fa torop parce que da doon wër ay manifestants pour jàpp leen yokk ñoom c'est comme si cherchait un nombre. parce que 9 heures boobu man balaa ñuy jàpp un deuxième presque c'était 11 heures yooyu noonu la ñu dawee. di topp ay manifestants yi noonu ba di 17h ñu yóbbu ma kii police quatrième. police quatrième. waaw d'accord léegi foofu la ñu fanaan le lendemain ñu defeeruñu ci. mais bi nga demee police quatrième dégluwuñ la defuñ enquête maanaam ba xam lu waral ñu jàppale ak yooyu. si ba am na am na benn policier enquêteur une dame d'ailleurs. Mhm. il m'a m'a elle m'a interrogé. Mhm. après ma wax ko yëpp ni ñu ma jàppee mais j'ai trouvé qu'il a déjà mis les chefs d'inculpation. il m'a demandé si j'ai étudié ma ne ko waaw damaa jàng mu ne ma liiral lii après ma liir c'était un PV où il m'inculpait de comment dirais-je euh, trouble à l'ordre public mhm. ci acte de vandalisme participation à une manifestation non autorisée. C'est pas J'ai d'abord refusé de signer parce que j'ai dit que tout ça ce n'était pas vrai parce que depuis 9 heures on m'avait attrapé j'étais dans la rue il y avait rien du tout. attrapé comme ça mais bi nga waxee enquêteur bi charge yi bokkul ak liñ la jàppee ndax loolu jot nga ko ci wax wala lan la la ci wax aussi moom. quoi. Hmm, moom enquêteur bi. waaw maanaam charge yi nga xam ne moom la teg sa kaw. ndax bi mu lay enquête xamal nga ko ni ko man bi may jàpp defuma dara. xam wax naa ko wax naa ko nettali naa ko yëpp ni ñu ma jàppee. même wax naa ko sax police bi ma bi ma andi fii daf ma waxoon ne tey si suba si la may bàyyi parce que dëkk bi wóorul la ma wax daf ñoo bind seen chef d'inculpation ñu ne ma ma signé noonu laa ko signé ñu defeere ma parquet ce qui veut dire que dañu la tëj yëgoo tiloo manifesté wu amul benn menace boo représenté woon jamono boobu ma ci dara jamais mus musuma dem ci manifestation ci manifestation musuma fa musuma faa dem damaa demoon école normale pour me renseigner mhm. ma jënn ci tali bi ñi di ñëw jour boobu rek comme ça tombé avec mhm. kii Sonko ñu jàppale ma ci yoon bi. d'accord bari na ñuy dénoncer euh, violence policière ndax loolu dund nga ko yow bi la jàpp wala bi nga nekkee violent. bon man comme ripo kiwu ma bañu ma dañ maa woo ma ñëw ñu jël samay carte pour man man dem naa ba dugg rëbës door a xam ne ndekete duñu ma bàyyi parce que comme defuma dara moo tax bañuma ci dara bu ñu kiiwee rek dama leen di topp. je croyais que coûte que coûte bu ma eggee tribunal. Mhm. ils verront que je n'ai bu fait ils vont me laisser. loolu laa foogoon quoi. d'accord mais malheureusement. Mhm. je crois que c'est tribunal d'ailleurs on m'a même pas posé de question. dañ ñoo yëgal mais nag man ak benn booy la ñu croisé ñu yëgal ñu benn bureau. bi ñu eggee rek waa ji daf ñoo ne asseyez-vous yéen ay booy sonko yi. c'est le seul mot qu'il nous a demandé. ay booy sonko yi. Mhm. on a essayé de nous justifier mais dégguluñu. comme ça mu jox ñu mandat de dépôt signé mm. leen après il nous a tourné le dos d'accord signé leen comme ça noonu lañ la defee mandat de dépôt yóbbu la rëbës rëbës waay ban chambre nga mité woon chambre 4 laa entré chambre 4 waaw foofu laa nekkoon bu ma jénn nii d'accord ndax mën nga fàttaliku bi ngay rentré yow ak ñaata personne yéen a duggandoor foofu bon ñu ngi duggandoo foofu onze heures la ñu yóbbu à partir de onze heures mhm. ñun quatre la woon ñun quatre ñoo duggandoor rëb kii quoi quatre quatre chambre 4 d' accord nga mité chambre chambre 4 ndax mën nga dikk ak ñun ci. li teewuma foofu laa des ba. chambre 4 d' accord ndax mën nga ñu expliquer première fois nga nekk xele war a dugg kaso. et puis bari na lu ñuy dénoncer vraiment hmm. li nga xamee ni mooy conditions yu mauvais yi nekk ci kaso yi. nga war a dund loolu tamit. waaw est vrai que kaso moom sa waay nu ñu mënta wax day des quoi nu ñu mënta wax ci ci biirum foofu moom day day des man premier jour presque toog naa une semaine. nelaw bu baax amul awma ko ndax la parce que boobu dafa feesoon fees bi nga xam ne mhm. non c'était énorme presque deux cent et quelques éléments te man ci dernière position la ñuy may woo parce que ñu njëkk a woo ñooy dugg après ñoom ñu téye place ñu am fu ñuy toog da ngay dugg doo am fu ngay toog parfois foofu métti na torop parce que ñun premier jour yi nouveau yuy ñëw dañuy toog mhm. ñeneen yi paqueté wu léegi ñun noonu la semaine bi kii le lendemain ñeneen yi ñii toogoon toute la journée toute la nuit. Hmm. ñoom ñu tëdd ñeneen yi paquet kii toog. d'accord noonu lañ daan kiiwee. léegi boo nelawee tey suba doo nelaw nga nelaw tey suba doo nelaw noonu lañu jàppee ba. d'accord ma jénnee nii d'accord alors mu nekk mu nekk condition yu métti quoi vraiment loo mësul dund nga dund ko ban sentiment nga amoon moment boobu. ah vraiment euh, métti na torop. Hmm. dafa metti trop dafa metti trop man euh, ce qui plus marqué mhm. c'est le fait que lu ñu lu ñu retardé quoi six mois yi ñu ma jàpp noonu presque sept mois yi ñu ma jàpp noonu mënoon naa réaliser leneen quoi mais ils m'ont privé de tout ça ma toog noonu sept mois sans rien faire après ñu bàyyi ma sans condition on m'a même pas enquêté je ne sais pas si on m'a libéré avec liberté provisoire ou sous contrôle mais on rien dit ni ma dugalee Rebeuss jusqu'au vendredi mhm. on m'a dit sortez d'accord et on m'a donné un papier je ne sais même pas si c'est un papier de liberté provisoire ou c'est comme ça comme d'accord euh, monsieur Dramé en tant que ancien détenu démb gis nañu ministre bi yor mbirum yoon muy ministre ministère de la justice moom dàq na lépp loo xam ne rek jàpp na ni xëy na yeneen ko doon dénoncé jàpp na ni képp koo xam ne yoon teg na la loxo da nga doon manifester beneen bi aussi bavure policière nee na loolu amul Sénégal état de droit la communication boobu lan nga ciy tontu. non mais c'est du grande bourde moi je crois que le ministre il ne s'est pas renseigné également aussi de la condition dont il détient les gens parce que man avant j'étais le premier à être arrêté ci oto bi ma nekk mhm. mais en dehors man en dehors man ñëpp ñu ñu dugg parce que jour boobu ëpp nañu sept ñu ñu ñu jógee police quatrième pour dem euh, sant ci tribunal. d'accord mais moi man lañ njëkk a jàpp ñeneen ñi ñëpp ni ñu leen jàppee ci condition boobu. sama mhm. kanam la woon. d'accord amul kenn ku ñu fekk ci manifestation ñu jàpp la yëpp ay ramasse la. mën na am ñu jógee ci manifestation mais ñu ñu jàpp ci yoon bi lañ leen fekk noonu rek dàkk leen jàpp leen ñu waa àndi mais amul woon manifestation. d'accord ji fekkuñu leen ci dara sàndiwuñu dara waaw. d'accord alors ñu bari di xalaat ni képp ku dugg kaso soit génnee la génnaale nga feebar wala bi nga nekkee ci kaso bi daan nga feebar lu bari ndax yow dund nga loolu. waaye loolu du ñàkk yaakaar naa moom boo duggee yeneen sambur comme suñu sambur. sambur mhm. kat. Mhm. force fa nga génnaale ak feebar. ban feebar moo la moo la dal ci kaso man euh, moment tab yi moo ñu moo ñu sonnaloon quoi. Mhm. di la durant trois premiers mois. mais après ñu amee trois mois mujje naa am benn feebar bu ñuy naan tokkara foofu xasan la quoi sa hmm. yaram bi mooy xasan boo kiiwee rek mu gaañu gisoo presque loxo yi yëpp dëgg la dëgg la mais aussi ci biir kaso bi dambaloo bi mooy am na benn tablier bu ñu defar hmm. foofu la ñuy tëdd quoi ay weñ la weñ yi dem nañu boo xomaat foofu ngeen di tëdd waaw si kaw xaw na yàqu quoi après ma ma mujjee gaañu foofu dama demoon pour jàpp nga jàpp julli ba ñëw war a yéeg si kaw léegi ma def faux pas sama tànk yi dafa ritaxoon quoi. c'est pas possible ma def faux pas loolu mooy ñuul ñuulaa di. c'est pas possible presque toog naa une semaine bu ma xam ne mun maa mun maa dox. Mhm. fi ma toog sur place foofu laay toog tout le temps. d'accord dox sax mënuma koo def. c'est pas possible. Ouais. alors Dramé avant de finir lan moo la lan moo taxoon kaso gën a métti par exemple dama toog ba benn ancien détenu mu ne ma li ko gën a métti mooy ci biir kaso bi la yaayam génne àdduna am na ku ma wax ni ma li ko gën a métti ay waajuram ñu ngi hors de Dakar donc amul possibilité seet si koog yu demee noonu loolu lu ko métti la woon yow de ce côté lan moo la gën a métti. ci ci man tamit presque c'est les c'est parce que hmm. man concours moo ma andi woon fii après entre temps toog di uti ay journée. fan nga jóge Casamance Casamance d'accord région de Ziguinchor département de Bignona ok ci commune bu ñuy naan Koubalan foofu laa dégg mhm. après ma ñëw fii bi ma nekkee fii man kese la woon man ak sama benn grand ñoo luween du benn endroit sama mbokk yi sama ma propre famille personne ne venait presque léegi grand boobu mooy ñëw di ma seet si de temps en temps d'accord waaw mais moom tamit kiiwul noonu quoi waaw alors ban ban état d'esprit moom nga nekkee jamono bi nga xamee ni vraiment xëy na jàpp bi ñu la jàpp mënoon na nekk vraiment benn violence psychologique wala benn violence morale tey nga xëy rek ñu ne libéré nañ la loolu ban état d'esprit moom nga nekkee jamono ji. bon je peux dire que ça m'a ça m'a donné une certaine détermination pour euh, combattre ce qui est là. ok c'est une injustice wax pour li fi nekk jóge fi li fi nekk moom euh, baaxul justice bi baaxul. ni ñuy jàppee nit ay mandat de dépôt c'est énorme mm-hmm. boo duggee rëbës tamit boo loo li nga fay fekk bu ñu la mën na nettali rek du nga xam ne des na d'accord comme paquetage yi wala ay maladies yi fa nekk non mm-hmm. c'est énorme d'accord mais bëgg naa aussi bëgg naa aussi nga leeralal ñu monsieur Dramé maa ngi doon waxtaan ak benn détenu mu ne ma euh, déjà ay yenn viol yi viol sur homme day am rawatina ay mineurs yi nga xam ne ñu ngi fa góor ñi góor ñi dañuy faral di tëddante foofu ndax réalité bu am ci kaso yi la vraiment bon je ne peux pas confirmer parce hmm. que man ci chambre bi ma nekk daal en tout cas gisuma. gisoo ko fa d'accord mais damay dégg. damay dégg gars yi di ko nettali. ñu naan am na. waaw parce que am na benn gaa ci chambre la nekkoon quoi mais dafa ñëwoon foofu yàggu fa mais xaw ma deux mois un mois la fa def après ñu muté ko quoi mais euh, ñu ne lu tax ñu muté ko parce que loolu la doon def parce que not chambre chef de chambre. Hmm. xam naa il est trop strict par rapport à ces choses là waaw moo d'accord loolu man gisuma ko. d'accord mais yaa ngi ko fay dégg comme comme beaucoup de Sénégalais yaa ngi ko fay dégg. d'accord alors tey pour pour ñu jeexal bu amoon message boo bëgg a lancer jëmale ko ci état bi par rapport ak libération arbitrale wala arrestation arbitrale bi nga xamee ne nii dund ngeen ko mu xaw a yàgg sept mois aussi ñu xëy libéré la lan lay doon. bon qu'on la justice. Mm. man damaa yaakaar ne réew mi amul justice loolu laa yaakaar. ça va dans tous les sens dama foog ne la justice est est à terre quoi parce que boo gisee man ñu li ñu jàpp ma six mois libéré ma te enquête sa def ma loolu moo gën a métti ñu jaar ñu jàpp la à un certain moment ñu libéré la c'est comme si amoo benn. oui vraiment vraiment vraiment loolu moo rétablir la justice. c'est déplorable vraiment.